thank you asalaamaaleykum mbokk rajo Oxygène ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam santam dellu si war nañu ak yéen diisoo ngir aaru di projet Africa Check ñu di ko amal ànd ci ak ki nga xamante ne moo di théâtre Fora Thiam lépp ci jàppandalu Google News Initiative à la présentation euh, Kodulum di fàttali rek na émission bi fii rek la altine bu jot juróom-benn waxtu ci ngoon jàpp juróom-ñaari waxtu ci ngoon te ngeen mën a am nag en direct ngeen mën ko suivre ci Zeno FM rediffusion bi ci fàttali euh, dimaas bu nekk lay doon di ko dalee fukki waxtu ak benn ci suba. jàpp li nga xamante ne moo di midi ci fàttali itam tey dinañu dalal ci émission bi comme ni muy amee saa su nekk docteur Mouhamed lii nekk médecin spécialiste en micrologie médicale ak santé publique mu mel ni ni ngi may wax ne mi ngi ci euh, ligne bi asalaamaaleykum docteur. waaleykum ñi ngi lay fay di fàttali nag ne docteur euh, Mouhamed Lamine Ly mi euh, ancien la woon euh, ci fonction publique waaye dafa retraité daal di ubbi li nga xamante ni moo di cabinet médical privé fële ca Grand Mbao docteur ci fàttali rek kon ma lay wax ni thème bés bi tey mooy ndax njëriñ am na ci nit koo xamante ne jot na Covid ba pare mu daal di jël li nga xamante ne moo di vaccin am kon xam naa ni laaj bi dinañ ci tontu ci kanam kanam ñu bàyyi la ba ci kanam xam naa ne dinañu dellu si waat ak yow bu baax a baax nga garder ligne bi ndax dinañu la soxlawaat ci fàttali itam leen di xamal ni tey Modou mooy acteur moo di épisode 14 bi nga xam ne moom la ñuy fas yéene am ak yéen tey ci fàttali Modou moomu nag moom fecckat la doon génn tukki ànd ak troupam waaye li ko teree dem mooy dafa jëlul vaccin am te li tax jëlul vaccin am lenn kese la mooy dafa gëmul ne feebar bi am na kon nag dinañu dellusiwaat bu baax a baax ci loolu ci épisode 14 bi nga xamante ne moom lañu ñu war a amal tey kon dañuy rekk bàyyi suñu nga xamante ne ñoo di euh, troupe bi jaay pap naka eh Modou naka. oui si gaan naka. ziar naa la. ça va bien cool. waaye tranquille. si kawam de. waa gis nga de gaan dama bëggoon tàngal yaram bi balaa gars yi di egsi. si si dëgg la kay. mais gaan temps gisuma la lan la woon baadu jàmm la woon rek. waaye man temps yii damaa laajte maa la nag ba sonn. man damaa de demoon hôpital. salaamaaleykum salaam. Eh, eh, Pape naka mu. yaa ngi si jàmm Moodu. ça va Moodu maa ngi jégalu de sama maam moo ma yónni woon moo tax ma tardé répétition nii. yow Pape fan yee passé maa ngi tasanteeg sa benn sœur bi. ma la koy laaj mu ne ma dangaa hospitalisé baa yaa ngi tane bu baax. waaye man de presque rek dee woon naa quoi. ah bul wax loolu. biñ ma xoolee. ndekete dama corona. amoon naa trois jours yoo xam ne du ma nelaw guddi. sama yaram bi. sama dënn bi su may saxaat non day fa mel ni dañ koy xotti ma amee yar wuy métti su may saxaat nag lay gën a am problème du ma nokki sama nooy ma ni luy fatt yéenewu ma ko kenn mais li ma leen di xelal daal mooy wuu bàyyi feebar boobu baaxul te ku mu la dal bu amul toppatoo da ngay ñibbi la bi sina ku ebu dem vacciné wu ji parce que man après damaa jël vaccin bi docteur bi nee na ma dama koy yéex a jël. Pape moom li nga expliqué ni métti na trop wax dëgg fa yàlla man moom coronavirus moom damay dégg rek nit ñi di ko wax. mais comme nii lay defaate nit Pape daa am lu ma jaaxal yow danga nga ne bañ la testé da ngaa positif. mais nga tane après nga dem jël vaccin bi tamit loolu moom pour lan la. wax jaa ngi noonu nag mais yow naka ngay feebaree ba wér ba pare di naan dangay soog a faju bi ma feebaree ba wér si lay door a xam nag njëriñu vaccin bi dama daw dem jëli jikka parce que xam naa ne dina ma dimbali bu feebar bi ñëwaatee na mu waroon a def si man dootu ko def. waa mais Pape yow da ngaa wax léegi say biiri wax. nga ne bi nga demee ba wér gay soog a xam njëriñu vaccin vaccin bi avant ngay feebar nga ko waroon a jël bu fekkee na da ngeen a gëm seen feebar boobu noonu ngeen naan coronavirus da ko gëm man pour man da nga jël vaccin bi avant beneen bi ci des coronavirus moom xanaa nag du la dal di la dalaat moom bu la dalee ba pare jeex na mais dal la dalaat la beneen bi ci des xoolal vaccin bi moom waroo ko woon sax jël man boo ma déggaloon doo ko sax jël ndax yow jaratul woon nga koy jël yow Modou damaa yaakaar ni dangaa déggul li la Pape expliqué yow Pape mu ngi ne la coronavirus bi da ko sonaloon ba mu tanee mu dem jël vaccin bi moom kay li muy daw moo ko xam parce que wax na dëgg day bañ affaire bi dalaat ko di ko sonal comme ni mu ko sonalee woon loolu moo tax mu jël ko yow Modou mënoo bàyyi ni ngay mel yow nit ki dem jël vaccin ngay ñëw fii di yàq xelam bi naan ko waroo woon jël lii wa ku am coronavirus ba pare. jaratul ngay vacciné wu yow da nga war a bàyyi. si sa affaire yi nii bàyyi saa yu ma waxee rek nga jël sama wax teg ko fële de du yàgg dara da ngeen ñëwaat xam ne man maa wax dëgg. yow coronavirus amul. Modou say information ci coronavirus nag ñun kenn xamul fan nga koy jëlee yow Pape dalaa wax boo amee coronavirus xaw ma jaratul ngay vacciné wu man Modou yow li ngay wax kenn daka sax xamul. maa ngi jéggalu ko parce que xam naa ne lii man maa ko fi andi parce que man maa feebar tane ñëw saal. di leen wax ne ngeen jël seeni matuwaay dem ñàkku ji vaccin yi boo ko jëlee dina la dimbali de. Pape pour te dire ñun ñàkkuwuñu bopp. Pape amul jaa ngi jéggalu dara yow gis nga li nga def nii lu rafet la parce que dangaa ñëw fekk ñun fi ñuy dajaloo nga ñëw di ñu sensibiliser wax dëgg fa yàlla dañu koy rafetlu bu baax yow amul leen loo fiy jéggalu man de xaw ma kan waaye man moom dinaa dem jëli vaccin bi te sa maam su ma demee dinaa ko wax mu jël vaccin bi.

Pape namm naa la. ziar naa la si loolu ne. maa ngi nii rek gis naa la gis naka yaram bi. waaw sant maa ngi am tan bu baax a baax. ba yaa ngi ci jàmm bu baax maa ngi jàmm maa ngi si jàmm. ana meer ak ngi si jàmm alhamdulilah. Pape nag namm naa la. billaay gis nga de man daal feebar bi daal moom xaw na téye mën naa toog rek ba si kanam ba yaram wi gën a tënn. dëgg la dëgg la soo laa jógee nii sax doon ah, xooli gars yi répétition man mii sax yàllaa def ñu daje parce que man seen kër laa doon dem. ah bon ba jàmm. jàmm ak salaam rek Pape ah, xam nga ku ne xam na ne man relais communautaire la maa ngi ci affaire sensibilisation yi. comme yow dangaa feebaroon coronavirus daloon na. ma bëggoon nga nekk sama assistant di ànd ak man ñuy dem di def porte à yi sensibilisation yi ci Covid 19 saa bu may dem réunion ma ñëw jël si la ñun ñaan ñu bokk nekk benn groupe di liggéey. mais bii loolu amul benn problème mais man dafa am lu ma jaaxal quoi. lan parce que bii ma demee saal fekk fa gars yi bi ma leen expliqué. dañ ma ne ma non man jarul woon may jël vaccin bi parce que comme corona ba pare. kan moo la wax loolu. Moodu moom da ngay ree ba tas. pap mënoo ma bàyyil Moodu. Moodu jarul nga koy déglu ki la ne carrément. gaw ma coronavirus kooku jarul muy wax dara nga koy gëm. parce que li muy wax maîtriser wu ko nekkul moom mooy liggéey ci santé amul mbokk buy liggéey ci santé wu ko kon loolu warul wax nga déglu ko te yow noonu nga def mooy lu baax baax bi vaccin boobu nga jël mën a mën jàppale ba beneen yoon coronavirus du la dal wala bu la dalee sax ni mu la waroon sonalee du la sonale noonu. mais amul benn problème. laa bëggoon Pape mooy maak yow ñu ànd def porte à porte def sensibilisation ndax ku ne xam ne ne Sénégal. chaque jour rumeur bu bees bu ñu génnee te koo ci wax affaire corona wala nga wax ci wax affaire vaccin danaan la mosumaa gis ku mu dal léegi nag comme yow dal na la olof danaan lu mu saf ku ko macce ko mën a xam léegi nag bu ñu demee mag yow toog su ma waxee nga jàppale ma ne ma carrément yow coronavirus dal na la xanaa nit yi nag dinañ gëm li ñu leen di wax saa yoo paree rek man pare naa foo bëgg ñu dem rek bu demee man dinaa expliquer lii xamante ne nii noonu laa ko doon dundee ndax corona métti na métti goo xam ne su la dalee soo amul ku la dimbali tuuti bu si yàlla jàppul non dangay ngay faatu. kon nag nañu dugg porte à porte def sensibilisation nit yi dem si wu. amul benn problème Modou boo ko mënoon gis. waxtaan ak moom gën ko sensibiliser ndegam man mi corona dal maa toog jàkkaarloog moom naka Modou koronaa nii la ma dikkee wax ko bay wax ko ne que man su may saxaat sax sama dënn dafa ma ni dañ koy xotti su may noy muy bañ samay tànk sama bopp lépp loolu yëpp dinañ ko réussir incha allah dinaa ñëw même mën ak yow ñu ànd tànk ak tànk dem seeti nit yi jërëjëf merci beaucoup Téléthon maa ngi nii toog Binta eh, Binta sa war a ka ngoog Modou kaay ñu si nag eh, eh, wuy ma am naa lu daax sinab bàyyi si sinab bi ma tegal la yow moom da ngaa kaay nii rek kaay sama xarit tey lu garaaw laa la indil lu xew xam nga sama copain boobu noonu Pape Pape te mu gàtt di rek mu bëggee wax sa xarit doobu Pape daal boo ñëw tey ne ma dafa coronavirus woon. <laughs> après ma xool ko gàttaay bi mu ne ma nii. bi ma paree mooy affaire bi ni ma jàppee woon après si laa dem jël vaccin bi da ko jaroon. <laughs> gis nga nag Moodu seen salle de répétition si yóbbu seen salle na de. non booy suñu salle boo dàq loo gis ba pare moom nee na dafa dem ba wér de soo dem jëli vaccin. Moodu. léegi loolu da ko jaxoon kon kay moom jaxul muy vacciné wu comme nee na dafa dem ba wér. du loolu laa lay wax man looloo ma def ay ree mooy yow nit ki naka ngay feebaree dem ba wér naa dangay soo soog a dem faju ji loolu ban sens la am. <laughs> ah waaye Modou tamit est-ce que Pape tamit lu mu wax nekkul dëgg. Eh, wuy ma Pape li mu wax man dama ko sax gëmul man feebaru coronavirus loolu est-ce que am na dëggantaan am na amul waay non bindaal waxal rek loolu amul waay. yow naka ngay feebaree ba wér di soog a faju loolu dafa am fan la am. waaw loolu tamit jaaxal na ma de ah Pape moom tamit léegi moom lan moo ko texe woon mu jël vaccin avant muy feebar. nee nee na yaay nee na na day waxtaan ak ñun pour convaincre ñu pour ñu dem jëli ji kii vaccin yi mais xoolal rek saal maa ngi ñoom ba ñu ma ci dara kenn du fa jël ay vaccin ñoom bu fekkee ne ñoom dañuy volonté wu jël seen vaccin dañuy jël seen vaccin mais saal ba moom tant que maa ngi fa soxla ko fa jël. ay nit ngeen yéen lan moo seen problème ngeen nekk fii keng keng keng keng keng keng yow Moodu yow mag nga yow yaay magu Binta nga nekk fii di jëw rek yow ak sa xarit boobu xam ne noonu la la bëggee wax na nekk coronavirus affaire bi dal ko mu ñëwaat jëlaat vaccin bi nga ñëwaat di ko reetaan sa reetaan yu ñàkk xorom yi. soxna yow est-ce que man ak Moodu ba ñuy wax. yow dañoo wax ak yow docteur yow tamit ñun waxuñu ak yow docteur. Binta man duma sama romb nga naa ma docteur. Pape li mu def loolu mooy lu baax man chaque jour bii sama xarit la moom moo ma mag mais chaque jour dañu waxtaan ni mu def noonu dafa waroon dem vacciné wu parce que feebar bi mën na ko dalaat te bu ko dalaatee mën na ko sonal vaccin bi rek moo ko mën a muccal lan mooy boo ko coronaawee waroo dem vacciné wu da ngeen di wax loo xam ne yéen ñi maîtriser woo leen ko yéen xamoo ne ci dara yow moom Modou dinaa wax ak yow yow mag nga defal yi yëfu mag yow nga nekk ak sa raq bi nekk fii di jëw ci la ay sujet yoo xam ne maîtriser woo leen. wax nga dëgg mag soxna woowuma la bi may wax waxuma ak yow man Binta laa doon waxal soxna man boo ma joxul cër man jox naa sama bopp cër moo tax waxuma ak yow. man maa wax ak yow parce que. non non dugg ci ay sujets yoo xam ne maîtriser woo ko. xam nga yow da may tooñ. bu fekkee ne yow da ngaa jël docteur def ko sa bopp. nekkal sa docteur bopp defoo ko maanu sa morom dégg yow barki yàlla bu nekkoon sama xaq nga dinaa la mbéjat ba nga sonn. wax na la ak say air yu ngay roulé man ak yow demal seetali sa làmmiñ bi moo gën. waxuma ak yow. yow Modou nag yow tamit da ngaa wax bàyyi tooñ xam nga lan moo am ba des li am ba des mooy gis nga man naam gëw ma ne feebaru coronavirus am na mais man gëw ma ne man nit ki nga feebar ba pare ba wér soog naan da ngay dem faju ji waaye yow bu fekkee ne da ngaa feebar ba wér doog a dem di faju ji ndax moom dina ko jarati Modou waa kër docteur waxuñu leen ne boo coronawee du la dalaat kenn waxu la loolu moom corona woon na léegi lan moo ko mën a mucca mooy mu dem jëli vaccin bu jëlee vaccin bi na corona mën na ko dalaat waaye du ko sonal nu mu ko waroon sonalee di day leen laajte boo leen xamul waaye da ngeen toog fii ci kër gi taal seen télé wala nekk di lekk-lekk bu neex rek di jëw di wax lu leen neex parce que te xamoo leen dara li ngeen di wax maîtriser woo leen ko Binta moom ma gën a soof parce que moom dafa mën a jëw yow tamit nga nekk mag boo xam ne tamit doo joxe exemple bu baax. kon yow man ngay waxal nii nii man maay sa jëwkat. baax na léegi yow Moodu xam nga nan ngay def boo demee répétition waxal Pape moomu mu xool ba xam rek Moodu yow tamit coronavirus nag da ngaa war a bañ jig bu wax yow tamit yow tamit waxatuma ak yow dem leen seen yoon léegi léegi da ngeen a gëm seen coronavirus gëm loon ko ngeen àndandoo dem seen yoon. déedéet man waxewu ma ko noonu. non man man maa waxatul ak yow pare naa ci yow de dégg léegi gëm leen seen coronavirus ngeen dem ak moom coronavirus existé wul may la ma sama jaam waay yéen tamit soof ngeen trop. jërëjëf ñu leen di jaajëfee bu baax a baax technicien réalisateur boobu di Fallou Sow di gërëm itam ñi nga xamante ne ñoo di comédiens yi tey jii ñu amoon ki nga xamante ne moo di Cheikh Ndiaye Khady Fall Diaw Mame Mbodj Gaye Seynabou Diop Yacine Diop ak nga xamante ne moo di Mouhamadou Ndiol lépp ci jàppandalu Koumba Silla waaye itam ñi nga xamante ne ñoo assuré mise en onde radiophonique bi di Emmanuel Mendy ñu gën ko xam ci turu DJ Las ak nga xamante ne moo di Daouda Ba kon nag mi ngi noonu mu di di diisoo ngir aaru di émission hebdomadaire bi nga xam ne dañ ko tëral mu nekk théâtre radiophonique boo xam ne li ko tax a jóg rek mooy xeex li nga xamante ni mooy xibaar yu warul yi te nag principe bi xam ngeen ko mooy auditeurs yi daal di dugg ci biir émission bi waxtaan directement ak ñi nga xamante ne ñoo di artistes yi ngeen am possibilité itam tontu ci laaju semaine bi muy lan ana lan lañ mun a wax ñi nga xamante ne dañu yaakaar ne ngir xeex lii di Covid bi ki nga xam ne dafa feebar ba moo di vaccin bi am ngeen possibilité daal di réagir ci réseaux sociaux yi ngir indi seen tontu ci réseau yi Africa Check waaye itam ci SoundCloud ak sax zeno bi nga xamante ne am ngeen possibilité déglu fa émission bi actuellement ni en direct mu mel ni benn numéro rek ngeen di def di 77 424 94 73 muy numéro WhatsApp émission bi ngeen mën a envoyé message daal di participer ñu daal di leen woo téléphone. ngeen mën a dugg ci biir émission bi joxe seen xalaat mu mel ni ñu ngi may xamal ne am na benn auditeur wala auditrice bu nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay nuyu soxna si an fan ngay wootee ak naka nga tudd. maa mami di wootee Géejawaay. mami mbaa yaa ci jàmm. maa ngi bu baax a baax. ma jàpp ne kon yaa ngi déglu émission bi. waaw maa ngi koy déglu bu baax kay. kon dama bëgg nga wax ma rek artiste yaa ngi nii toog ana lan moo la intéressé fan nga bëgg en tout cas yi la artiste daal di la joué. la ndax loolu mooy principe bu émission bi. waaw ci Bintaal. ban séquence nga bëgg ñu joué la ko. ci partie 3 bi. waaw d'accord artistes yaa ngi nii seen trois bi la kon ci mhm. euh, euh, fàttali rek kon dañuy bàyyi ñi nga xamante ne artistes yi ñeen a ngi dégg donc li nga xamante ne moom la ma mami bëgg waaye bu ñu joué waatee bu ñu yeggee fi nga xam ne foofu nga bëgg rek da nga naan stop ñu daal di arrêté ndax nga mën a wax ak mhm. ñoom directement ndax mën naa nekk incha jërëjëf kon aci leen ñu dem eh, mais wuy ma nañ bàyyi sirop bi tey dama laa indi lu dàq ah, sirop soxna si fii laay wax waaw foofu la ñuy wax kon mu mel ni ñi ngi lay dégg euh, soxna yaa ngi noonu aja mën nga wax ak ñoom directement rakku jàmm binta laay waxal ku feebar daal kenn du ko reetaan danga koy encourager pour moom mu mën a toppatoo yaramam bu baax parce que boo ko reetaanee mën na décourager ci yaramam yow yow wuy ma xanaa déggoo kii li mu wax Pape li mu wax dafa corona ba wér. Mhm. soo ko dem di jëli ji vaccin bi. man bi ma ko waxee dama ne ko mais loolu amul sens. mais loolu sax da mhm. lay def ay reetaan nag dafa mënul nekk. mën na nekk kay. nan la mën a nekkee yow nga am coronavirus ba tane. après nga ne da ngay dem jëli vaccin bi loolu ban sens la am tamit yow. ah day fexe day fagaruwaat ngir bañ mu bañ koo gën a sonal rek. bañ mu bañ muy jëliwaat vaccin bi muy jëli vaccin bi. léegi lan moo tax moom kon avant muy am coronavirus demul jëli vaccin bi bu fekkee pour aar la kese. Mm-hmm. mais nga toog ba feebar ba pare après nga nga dem naan da ngay faju ji. peut-être da ko bett mën na ko bett Binta. ah man de loolu man bu fekkoon man la moom duma ko def moom toog ba tane. après may dem di nekk vacciné wu en mode. la mu ñam moo tax li mu ñam daa metti xëy na moo tax mu ne day jëli vaccin bi. kon noonu la sax ànd naa ak moom bu la dalee ba pare. dootu la dala mhm. kon kay jaratul muy jël ji vaccin non docteur yi waxuñu lool de lan la ñu wax ba pare dootu la dalati loolu kenn waxu ko lan la ñu wax ah, boo vaccin da lay aar ci yu bari rek mais waxu du la dal ah, waxu la du la dalati ah, comme mën na la dala ah corona bu la dalee ba nga wér mën na la dala ah waaw ah man seen feebar bi si boo dalee boo feebaree ba pare mën na la dalaa noonu la corona mel rek moo Modou xam nga kii lan la bëgg a mooy comme si vaccin bi da koy aar après ba du sonn wala. vaccin bi da aar ci quelque mais mënu la assurer ne doo am corona daal. waaw loolu de moom mën naa ko gëm yow moom mu da ngay indi ay information rek. seen vaccin bi kon jaru ngeen koy jël vaccin bu la mënta aar ba feebar bi du la dara jaru ngeen koy jël loolu du vaccin wu dara. Euh, jërëjëf kon ki nga xamante ne moo di mami ci participer bi nga xam ne def nga ko ci biir émission bi wante yow bu doon yow tey naka ngay def ban taxawaay ngay am yow moomu mami. ci bu ma dalee ba pare. waaw. xanaa ma dem jëli vaccin bi rek ngir bañ mu dal ma mbaa may sonal keneen rek. jërëjëf di la jaajëfee bu baax a baax di noonu nga ko defee noonu rek la xam naa rek ñu bàyyi la nga woyaat di déglu émission bi ndax dañuy dem léegi rek comme ni ñu koy defee saa su nekk daal di delluwaat ci suñu invité nga xamante ne mi ngi en ligne boobu ba léegi docteur Mouhamed Lamine Ly ma lay nuyuwaat. ok maa ngi leen di fay na def. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. di la jaajëfal bu baax a baax docteur Mouhamed Lamine Ly nga nekk spécialiste en biologie médicale ak santé publique tey jii ma lay laajagum ana lan moo différencier li nga xamante ne moo di microbe bactérie wala sax virus. bon dafa mel ni microbe ëmbaale na virus ak bactérie ak parasite ak champignon kon nag doo jàngoro bu ndaw bi mais ci biir microbe mun nga ci fekk virus. ak bactéries yi bon virus mooy comme ay corona ay Ebola ay rougeole ay hépatite bëri na daal virus ak sida yooyu yëpp virus la bactéries nag mooy mun na joxe pneumonie mun na joxe infection digestive comme ay fièvre typhoïde parasite mooy paludisme wala saan yi nga xam ne xale yi dañ koy am champignon nag mooy lii moom tamit indi ay feebar comme comme affection cutanée mycose wala affection digestive candidose. Euh, jërëjëf docteur mu mel ni nañ ko spécialiste nga en microbiologie médicale euh, tey jii mu mel ni da ngeen def ay recherche yu bëri ak ay études ndax mën nañ xam xam-xam boobu nga xam ne mooy jëlee ci loolu ngeen def ci ay études naka ngeen koy euh, partager ak ñi nga xamante ne ñoo di sénégalais lambda yi nga xamante ne xëy na xamuñ lan mooy seen njëriñ yéen. Ah, xam-xam bi microbiologie bi. surtout nag ci yu mel nii rek comme ay pandémie ak épidémie bon ak tamit xam ngeen ne souvent centre de santé day am ay laboratoire ak yooyu santé publique nag moom dañ koy jëfandikoo gis nañu njëriñ bi ci pandémie bi maanaam ñoom ñooy tax ba expliquer nit ñi ni ñu war a def pour euh, jël ay méthode de prévention te kaawu Covid bi nag justement wane na affaire bi ni mu compliquer waaw mu mel ni dañ ko ñàkk nañ suñu invité boobu waaye mun na dellusiwaat xam naa ne euh, ci kanam ci biir émission bi ndax xam euh, am na solo lu ñu mën a andil euh, njëriñ la ñu daal di wëy yéen ci émission bi rek fàttali ren ne numéro whatsapp bi bu Africa Check moo di 77 424 94 73 ñu mën ko utiliser ngir mun a passer ay message boo xamante ne rek ku ko ci def rek dinañ la mun a woo nga dugg ci émission émission bi participer ci bu fekkee sax da nga a sol mbubb bu benn ci artiste nga mën koo daal di nga daal di ko def di fàttali rek ne euh, question euh, semaine bi moo nekk ana lan la ñu mën a wax ñi nga xamante ne dañu jàpp ne euh, vaccin bi moom amatul njëriñ gannaaw boo feebaree ba wër ni fàttali tam ne am ngeen possibilité daal di réagir ci réseau sociaux yu Africa Tech gi ngir indi seen xalaat jëm ci loolu ñuy euh, jéem a làmbaat ba xam ndax dinañ jot nga xamante ni moo di euh, docteur Mouhamed Lamine Ly nekk euh, ganu bés bi tey ngir mu mun a indi ay xalaatam jëm ci lii li nga xamante ne moo di li ñuy waxtaanee. muy euh, li nga xamante ne moo di euh, Covid bi rawatina euh, yi nga xamante ne ay xibaar yu warul la ñu faral di leen dégg saa su nekk bu feebar bu mel ni amee mu mel ni kon ñàkk nañ ko waaye ñu ngi jéem a xool naka lañ koy donc jotaatee ngir mu mun a poursuivre li nga xamante ne moom la ñu tàmbali ak moom mu mel ni teg baa ngi may wax ne docteur mi ngi ci ligne bi allo docteur. waaw dafa mel ni ligne bi dafa dagoon. mu mel ni euh, Covid 19 bi li nga xamante ne moo di mbas mi ak omicron yi nga xamante ne ay virus yu circulé la boobu ba tey ci àdduna wërngal këpp Sénégal bokk ci ana yooyu la microbe ak i virus naka lañu mën a perturber euh, wër gi yaramu askan wi. waaw ah, nan la mën a perturber. waaw. waaw bon def naa omicron li ñuy wax variant la rek ci doomu jàngoro mbas mi nga xam ne depuis ñaari at ak léegi jaxase na àddina bi complètement maanaam bon dëkku tubaab yi sax la gën a sonal nga xam ne am na ñu bëri ñu ci loru ak tamit day am effet ci production bi maanaam dañuy faral di tëj bërëbu liggéeyukaay yu bëri ak tamit gis ngeen conséquences économiques yi mu am ci fret bi ak euh, lu bëri dafa gën a cher daal ci njëg yi donc euh, bien que peut-être y a certains secteurs économiques yu ci xaw a bénéficier wu comme par exemple euh, ay Netflix yi nga xam ne soo toogee kër ga euh, liggéey woo mën nga ko seetaan wala yu bëri daal yoo xam ne pour kii daal pour ñi ñiy toog seen kër ak mm-hmm. livraison service de livraison à domicile ak yooyu yëpp peut-être xaw nañ cee bénéficier wu daal. jërëjëf mais dafa désorganiser complètement d'accord dañuy dellu si waat yow ci question semaine bi maanaam ana lan lañu mën a tontu ñi nga xamante ne dañu yaakaar ne vaccin euh, donc contre Covid bi moom amatul njëriñ ci ki nga xamante ne dafa feebar ba wër. waaw laaj bu am solo la bon li ñu war a wax tamit mooy Covid bi dafa war a tax ñu gën a humble parce que su ngeen seetloo tamit dafa bëri li muy changer. Euh, boo ba léegi bi mu commencé ba léegi wax ji day mel ni yenn saa yi day xaw a changé tuuti mais li ko indi rek mooy feebar bu bees la boo xam ne mu ngi doog a ñëw te xam-xam bi ñu ngi koy découvrir au fur et à mesure mais li ñu mën a jàpp rek mooy effectivement comme ni ngi ko waxee ci théâtre bi mooy feebar mun nga ko def defaat ko loolu moo tax te tamit ñàkk bi du la aar pour nga bañ koo am mais daf lay aar pour que soo ko amee mu bañ la sonal ak tamit nga bañ cee loru gis nañ ne am na efficacité ci cas grave yi ak ci mortalité bi donc soo boolee ñaari yooyu te feebar bi tamit du la immuniser maanaam soo ko amee loolu moo justifier que euh, ñu war a waat même su dee dañu def feebar bi bu njëkk ba nag dañ doon wax ne soo feebaree ñetti weer nga toog doog a ñàkku wala après ñu ne waat juróom benn weer mais tekki suba rek woo naa direction de la prévention ba nee nañ ma soo négatifee rek mun nga jëlaat vaccin bon fu mu ne nii nag Sénégal ci ñetti dose la ñu yemagum maanaam soo defee bu njëkk bi defaat rappel bi wala su dee am na tamit benn boo xam ne Johnson Johnson par benn rek la en tout soo defee rappel bi foofu daal la ñu ne pour le moment euh, rappel boobu la ñu war a def léegi nag ñu déglu waa ministère ba xool su dee dina jar defaat yeneen rappel tamit au fur et à mesure. jërëjëf dinaa dellu si waat ak yow léegi waaye dafa mel ni nañu may won ne am ne benn auditeur bu nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw ça va maa ngi lay ziar. naka nga tudd ak fan ngay wootee. Euh, Ibrahima Seck. Ibrahima Seck fan nga euh, dëkk di mu mel ni yaa ngi doon déglu théâtre bi épisode 14 bi. maintenant fan nga bëgg kon ñu daal di la joué waatal ndax artistes yi nga xam ne ñoo ko joué ñu ngi fii toog ak man ci studio bi bu ñu la ko joué laatee nag ba ñu toll fi nga xamante ne mooy fi nga bëgg duggee da nga naan stop ñu taxaw bu ko defee nag nga dugg wax ak ñoom directement wala sax bu fekkee ne mën ngaa sol mbubb kenn ci ñoom ngir daal di convaincre leen itam dina am solo ndax mën nañu dem. bon surtout partie wu bi ñuy mbalagee Euh, mooy Modou ki doon saboté Pape mi doon expliqué ne dafa dem vacciné woon. mooy c'est la première étape waaw. Mm-hmm. d'accord kon dañuy dem rek kon yéen a ngi ko dégg ñu joué li nga xamante ne mooy partie boobu nga xamante ne donc moo intéressé euh, ki nga xamante ne moo di auditeur bi dugg. oui. waay ah? booy waaw gis nga de man de maa doon tàngal yaram bi gayaan sinon bàyyi gën naa la gis de fan gayaan mooy loolu laajte naa la. waaw mais xam nga rek taay moom dama xawoon eh, na yéen a ngi si jàmm. yow Pape maa ngi taseeg sa rakk bi wax que feebaroon ba hospitalisé ba man nga xawoon bi ma demee hôpital dañ ma tey ñu ne dama corona. oui. bay xoolal feebar bi métti na métti koo xam ne non ku la dalu rek doo ko xam li mu leen di xamal mooy que ne hmm. il faut ngeen dem vacciné wu sinon rek lu ko may non dina métti trop. vacciné wu mais da ngaa feebar ba pare soo ko mais waaw parce que dama amee Covid loolu lañ ma wax quoi. waaw yow Pape léegi loolu nan la mën a nekkee yow nga ne da ngaa am coronavirus ba tane après nga dem vacciné wu ah. man man man li ma jaaxal mooy naka ngay feebaree ba wér. soo ko dem di faju ji. waaw loolu tamit jaaxal na ma daal Pape yow kay avant ngay am corona kay nga waroon dem vacciné wu nag. bay c'est que da ngeen xamul feebar bi rek man moom li ma leen di xamal lenn la mooy que nag képp ku si nekk jëlal say matuwaay ndax feebar bi feebar na métti na métti koo xam ne du ma mën a saxat sama dënn bi ma ne dañ koy xotti xam nga mooy am problème bi nooy sama yaram di kii samay tànk bay bay man daal li ma leen di xamal mooy feebar bi daal métti na métti koo xam ne mooy loolu daal. jërëjëf euh, euh, Allo Seck ndax yaa ngi suivre waaw dama la waxoon ne bu fekkee ne yegg nañ fi la intéressé da nga naan stop ndax loolu mooy principe bi euh, tant que stop rek dañuy continuer waaw waaw baax na baax na c'est que mooy surtout bi Modou di ko di ko di ko ree ci parce que di ko di ko wan ne moom gëmul ne feebar bi am na en fait réellement parce que souvent ñoom soo xoolee lii di induire en erreur euh, population bi mooy ñu si bëri euh, du ñu dem vers la bonne information si si ce des gens yoo xam ne dañuy toog nii rek. ci biir waxtaanu euh, nit ñi. si uh-huh. la ñuy gëmee yenn yi ba nga xam ne li si ëpp dañuy juum. Seck kon yaa ngi yaa ngi am Modou ngi nii toog bu fekkee ne mën nga wax ak moom directement. waaw moom lay waxal sax. carrément cest dire que ñu mel ni moom. Euh, li ñu leen di gën a conseillé mooy souvent euh, su amee lu mel nii ci réew da ngay dem vers la bonne information nga bañ a basé rek ci sa xelu bopp wala si waxtaanu mbedd ngay gëstu et surtout di di déglu ñi nga xam ne ñoom ñooy experts yi bañ a basé wu ci les fake news parce que li si ëpp nit ñi si loolu rek la ñuy dégg. waa léegi dama lay laaj. waaw ndax yow boo feebaree. ngay dem faju ji wala avant ngay feebar ngay dem faju ji. wala après boo feebaree ba wér ngay dem faju ji waaw xam nga faju dafa am faju euh, cest à euh, faju bi ngay wax loolu du faju lii piqûre bi ngay jël waaw piqûre bi pour dimbal la ci feebar bi ngeen wax loolu la mm, waaw waaw mais feebar nga ba wér kay loo koy doyati ah, xam nga xam nga faju faju dafa am ah prévention c'est-à-dire euh, piqûre bi soo ko jëlee pour yow mu bañ la dalat la niruwula faju nga dem ñu lay soigné pour li la dal mu wér. ah kon boo fee boo pikiroo du la dalaat. ah kañ mën na la dalaat. ah waaw mais kon pikir bi ban njariñ la am. njariñ bi mu am mooy daf lay yokk dooleel. c'est-à-dire que euh, daf lay dooleel pour que même su lay dalaat bu boobaa du am doole boobu sa yaram dina fekk mu am anticorps yi. ba xamante ne nii dina ko mën a contrecarrer léegi nag loolu loolu la experts yi wax te ñoom ñooy experts yi te ñun dañu war a déglu experts yi. jërëjëf Modou waaye jërëjëf itam Seck fi nga duggee noonu am na solo ñu lay jaajëfal bu baax a baax a mm. baax euh, di la mm. may itam nga daal di poursuivre rek di déglu am na solo wante mm-hmm. ñu lay jaajëfee kon di la jox kon dig daje euh, beneen bés lépp ci diisoo ngir aaru ñu koy jaajëfee bu baax a baax mu mel ni docteur euh, Mouhamed Lamine lii yaa ngi ci liñ bi ba léegi ndax dégg nga intervention kooku nga xamante ne moo dugg léegi ci biir émission bi. donc euh, xam naa li ñu mën a def rek mooy ne su dee dem nga nag ba feebar li ñuy def yow soin curatif la bon effectivement comme ni ma ko waxee woon léegi li gën effectivement mooy nga aar sa bopp. balaa ngay feebar mais tamit euh, su dee amoon occasion euh, nga ñekku parce que tamit ñekk yi dañuy wax rek waaye doyul amuñ ci woon quantité yu doy pour ñëpp moom su ñëpp jógoon ne dañuy dem ñekku ji sax duñ ko mën a am donc ñi nga xam ne di koy njëkkoon a réservé nag ñi nga xam ne dañu am ko comorbidité wala am un certain âge au-delà de cinquante ans wala cinquante cinq donc moo tax amul daal stigmatisation nit kii su feebaree rek war nañ ko toppatoo même su dee ñàkkul woon tamit euh, jarul ñu koy ree wala di ko sabote waaye ni mu ñëwee rek euh, nañ ko fajee noonu ba pare nag continuer di def euh, li ñuy wax communication ak population bi pour expliquer leen intérêt ñàkku balaa feebar bi ñëw Euh, di la jaajëfal bu baax a baax sa intervention am na solo ñu mel ni yéen la ñu soxla ngir indi ay leeral jëm ci ñi nga xamante ne donc jàpp nañ ne gëmuñu feebar bi waaye itam li day tax ñu gën a bàyyi xel lu rawatina daal di aar seen bopp ñu lay jaajëfal bu baax a baax di la jox dig daje kon beneen bés ci beneen ponk ci émission bii di diiso ngir aaru jërëjëf. baax a baax di fàttali rek ne émission baa ngi wéy di diisoo ngir aru bokk ci yomb na envoye sa message ci cent vingt 77 424 94 73 ngir mën a envoyé message ñu mën laa woo ngir nga bokk ci ñi nga xamante ne di nga déconstruire li nga xamante ne moo di xibaar yu wëru li ñu faral di jot mu mel ni dafa am keneen ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum maa ngi lay nuyu soxna si. maa ngi lay nuyu bu baax a baax tur bi naka la ak fan ngay woote man la Mère de Oxygène. Mère Thilo rajo bi la ñu ngi leen nuyu bu baax a baax. Oh, waaw. mu mel ni yaa ngi doon suivre émission bi. waaw maa ngi ko léegi ana fan nga bëgg ñu daal di la joué laat ndax artistes yaa ngi ñuy toog. waaw maa ngi dugg si numéro 3 bi. ci seen 3 ah d' accord ah, léegi nag dañ la koy joué waatal en direct waaye boo yeggee fi nga xamante ne mooy fi nga bëgg a duggee da nga naan stop ba waxee stop rek ñu daal di arrêté nga mun a jokkoo ak ñoom directement ndax ñu ngi nii ci biir studio bi. waaw dem. Binta eh, kii da jàmbur la yow. waa Moodu. kaay sinap. teg sinap bi tey dama laa lu dàq sinap. lan la. xool xam nga sama xarit boobu noonu Pape. Pape waaw. woo xam naa ko mooy sa xarit boobu noonu di waxee ay noonu mu ngoog moo ñëw tey nee na daa corona woon quoi <laughs> corona <laughs> mais li ma ci jaaxal mooy nee na bi mu demee ba wér lay soog a dem di jëri ji vaccin bi <laughs> waaye yow Modou loolu lan la war mën a nekkee yow sa xarit boobu man damaa jaaxal yow nan ngay coronavirusé ba pare ba wér naan da ngay jël vaccin waaw yow yaa ngi feebar waaw faju woo dem ba wér naa da ngay soog a dem yow nag Modou yow moom ay kaañ rek ngay àndal yow Modou yow nit nga war ngaa nekk ci kër gi naan kekeke kekeke kekeke ah yow ak pab ni mu la bëggee wax ngaa nekk ci kër gi naan da koy jëw Pape li mu wax noon la xanaa xamoon ne boo coronawee ba pare da nga war a dem jëli vaccin bi ndax moo la ci mën a jàppale nga nekk fii dangaa mën a jëw li ma gën a metti mooy yow da nekk fii yow ak Binta Binta sax waxuma ko waaye yow yaay magu Binta nga nekk fii di jëw pab yow ngi yaakaar ne loolu yoon la. kenn xuleeg yow dégg ñun ba ñuy wax man ak Modou ñoo doon wax yow Modou lu ma wax da nga déggul nee na Pape dafa dem ba tane am coronavirus ba tane léegi nee na mu dem jël vaccin bi léegi loolu ban importance la amati. soxna man du ma sa morom ba nga naan ma docteur dégg nga bu ma waxati docteur du ma sa morom. aywa madame madame docteur. xanaa xamoon bii gi sama xarit la. chaque jour daf may expliquer te l' jour nee na ma boo coronawee ba pare da nga war a dem jëli vaccin bi parce que moo la mën a jàppale ci coronavirus bi waxuñu de la daal de waaye bu la dalee tamit ni mu la waxoon sonalee du la sonalee noonu. voilà xam nga lan la coronavirus ci boppa moo amul ngeen nekk fii di sonal nit ñi et lan mooy nga feebar ba pare faju ji woo dem ba wér naan da ngay soog a dem faju ji. loolu ban sens la xam nga lii laay wax yii dangay nekk ci kër gi lekk-lekk bu neex toog di seetantale rek di sonal nit yi gis nga yow bu nekkoon sama rakk nga dinaa la mbéjat ba nga sonn man day man man maa man yow da ngaa diis te yan woo man ba may woote woowuma la woowuma la corona amul bu leen sonal nit ñi corona existé wul yow nag Moodu yow dangaa wax a bàyyi tooñ allo merci Lo allo waaw. dafa mel ni waxuloo stop te tànk que waxoo stop rek du ñu mën a arrêté ba nga mun a jokkoo ak ñoom directement ndax mën naa la bàyyi nga nga wax ak euh, ñoom. d'accord. mère Thilo. waaw. ma ne yow corona am na wala amul. corona am na. am na. am na kay. yow kaa gëm. damaa gis ni mu doloon. ah. waaw. waa léegi dama lay laaj. waaw soo coronawee ba pare ba wér. waaw ndax jarati na ngay jël vaccin bi. déedéet da ngay bi ñuy naan nit ñi nañu dem vacciner ji. waaw boobu ngay njëkk a dem ñu vaccin la. waaw da vaccin bi boo ko jëlee ba pare bu la dalee du la sonal mais boo bàyyee ba pare soo ko jël. waaw mun na mun na defaat effet e-, effet secondaire. mer ci lo mer ci lo affaire yi demee wut noonu de mer ci lo xanaa xamoon ne yow moom boo jëlul vaccin bi. ba corona dal la boo wéree da nga war a demaat jël vaccin bi. ndax corona mën na la dalaat mais bu la dalee bu nekkee vaccin bi nekk na ci sa yaram du la sonal ni nga war a sonalee gis nga moo demee bu ko déglu ndax moom gëmul coronavirus te man chaque jour damay déglu information yu ñuy wax ci coronavirus damay xool site Africa Check di déglu émission bii ñu naan diisoo ngir aaw xanaa xamoo loolu moo tax man lépp luy xew ci coronavirus ma xam ko. li nga wax dégg naa xam ne ko dangay yu dangay dem vaccin balaa bu la dalee ba pare tamit nga dem jëli ji ko. mais avant boobu man dama gis ñu xam dañoo ba pare. jaratu ko moom. jërëjëf jërëjëf ah. bu ba pare jaratul jël vaccin. jaratu ko de parce que. waaw waaw déglu moo bu déglu moo dundee ko jaratu ko. boo ko jëlee tamit ay calmant la nga dem jëli ko avant que mu lay dal mooy liggéey da ngaa dégg li Modou wax. waaw comme mu wax ba mu am la. kon yow Moodu mi nga xam ne yow ne na gëmul coronavirus ndax am na ci kër gi la nekk Moodu du takk masque Moodu vacciné wul Moodu deful dara. voilà merci lo kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci ñi nga xamante ne euh, def nga ko envoyé sa message 77 424 94 73 ngir participer euh, ci émission bi mu mel ni danga may xamal ne am na keneen ku nekkaat ci ligne bi. waaleykum salaam soxna si naka nga def. ça va. ça va boo yëkkatee kàddu gi bu baax nag dina gën a leer naka nga def. waa émission bi laa bëggoon participer neex na. fan nga woote ak fan nga dëkk. waa man yaraax laa dëkk. yaraax nga dëkk naka nga tudd. maa ngi tudd Ndeye Amy. Ndeye Amy kon yaa ngi doon suivre épisode 14 bi. waa dama ko xaw a tardé nag parce que dafa ma fekkoon ma jàppoon après bi ma dugg bi ma connecté rek laa laa dabe mais li ma bëgg. wax mooy participer ci émission bi. ñu ngi lay déglu. xam nga nit nag moom wax dëgg yàlla corona bi moom am na. gëm nga ne am na dafa war a ñàkku ji. mu mel ni kon ñi joué euh, épisode 14 bi ñu ngi nii toog dama lay bàyyi rek nga jokkoo ak ñoom directement waxtaan ak ñoom. ma ne. waaw dama lay laaj. waaw. yow boo feebaree. da ngay dem faju ji wala da ngay bàyyi ba wér soog a dem faju ji. déedéet instant bii. waaw même su ma feebaree dama war a dem vacciné wu bu ma feebaree ba wér tamit dama war a dem vacciné wu. nga ni yow vaccin bi lan la lay jëriñati boo demee ba wér. ah mais nga fagaruwaat rek balaa mu laa dalaat. kon corona bu la dalee boo wéree tamit daf lay dalaat. waaw man man man man gis naa koo xam ne nee nañ dafa feebaroon ba pare. waaw mu tane après mu dalaat ko. boo jëlee vaccin bi corona bi dootu la dalaat. boo jëlee vaccin mën nga jël vaccin bi mu dal la mais boo ko jëlee ba pare bu la dalee da nga mën nga jëlaat. gis nga euh, moodu li la ndey Amy mii wax dëgg la xanaa xamoo ne coronavirus mu la wax loolu la. mën nga ko amaat mais bu la dalaatee tam nim mu la waxee nga vacciné wu ni la waxee sonnele du la sonalee noonu. gis nga noonu nag. ndaa bi loolu laa bëgg a wax. ndaa bi yow nag moomu yow wax loolu laa bëgg a wax. ndaa bi wuy ma gis nga ñii nii bu ñu leen dugal ci seen caaxaan yi gis nga coronavirus ci boppam. existé wul. ba ñuy nekk naan leen ay vaccin bi boo ko jëlee mënu na laa dalaat ak mënu laa dalaat. man mënumaa d'accord nga feebar dem jëli vaccin vaccin boobu mënu laa aar man mënumaa d'accord loolu moo du mënoo bàyyi di wax coronavirus yow tamit amul am na kay day mais man moom allo allo Modou du docteur man moom gëm naa ko man gëm naa ne corona bi am na man gëm naa ko corona bi am na man gëm naa ko. jërëjëf jërëjëf Ndeye Amy ñu ah, lay jaajëfal bu baax a baax sa dugg am na solo kon ñu lay euh, wax rek nga wéy nii lay demee altine bu jot du ko dalee juróom benn waxtu ci ngoon jàpp juróom ñaari waxtu ci ngoon muy altine bu nekk mu mel ni am na ku nekk ci ligne bi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu sëñ bi. ñu ngi lay fay soxna si. naka nga tudd ak fan ngay wootee. Moustapha laa tudd. Moustapha maa ñi lay jaajëfal bu baax a baax Moustapha ma uh-huh. fàttaliwaat leen rek lan mooy euh, laaju semaine bi muy naka la ñuy digal ki nga xamante ne dafa feebar ba wër ndax kooku am na njëriñ tey jii mu jël vaccin bi loolu mooy question euh, semaine bi waaye uh-huh. nag euh, mën nañ ci tontu à travers donc réseaux sociaux yi nga xamante ne mooy yu Africa Check waaye mu mel ni yow yaa ngi doon déglu épisode 14 bi ñu la jouel sànq waaw maa ko doon déglu waaw. ana fan moo la ci gën a intéressé. principe bi nag lii la. bu ñu joué ba yegg si foofu danga naan leen stop bu ñu stopee nag daal di euh, nga mun a jokkoo ak ñoom bu fekkee am nga xalaat booy indi euh, ci épisode bi ñu daal di la déglu ndax mun nañ dem. waaw waaw nañ dem waaw. jërëjëf fan nga bëgg a duggee fan. da ngay wax fan nga bëgg ñu. fi Modou di kii ak sërëm bi. fi Modou di waxee ak sërëm bi. ak lay doon. Eh, kii de sama rakk la. yaa ngi ci sinap wuy ma dama laa indil lu dàq sinap. lan la. xam nga sama xarit boobu noonu Pape. Ah, waa xam naa ko sa xarit boobu. moom di wax naa nii sa xarit boobu moom. xoolal tey xibaar bu garaaw la ma indil. Hmm. nee na daa corona woon. corona. <laughs> waaw yow Modou yow moom kooku lu nekk moo koy wax. ba pare nee na dafa dem ba wér soog a dem jëli ji vaccin bi. waa yow léegi loolu ban importance la am. moo ma jaaxal yow nan ngay amee feebar bi ba tane après nga ne da ngay dem vacciné wu. loolu moo ma jaaxal. yow nan ngay feebaree. dem ba wér. waaw naa da ngay soog a dem faju ji. moom kay daa waroon jël vaccin bi avant muy corona. loolu mais moom coronavirus ba après muy dem di jël vaccin amul benn saal yow moo di yéen moom seen saal dafa neex moom. man man man ah. stop. voilà moom li nee na stop. Modou. waaw. naka mu. sant yàlla bu baax alhamdulilah maa ngi sant bu baax. yow sa xarit boobu moom ko kokkali noonu nga ne feebar bi amul lu tax mu doon jël vaccin bi mu taree ba pare. waaw waaw dafa fekk daf la dalul rek. lan daf ma dalul bu la daloon boo ci jógee di nga jël seen matukaay man mi di wax ak yow. daf ma daloon bu ma ci jógee laa jël bi. te dalaat na ma bi ma jëlee vaccin bi waaye ni ma sonalee woon dafa wàññeeku bu baax a baax ndax lan vaccin bi moom ma protégé. yow dama lay laaj. waaw yow naka ngay feebaree ba wér dem di doog a jëli vaccin bi. waaw man ne loolu laa lay wax nii. xam nga feebar bi dafa nekk feebar bu am doole loo xam ne nii sax mën nga si ñàkk sa bakkan waaye boo ci jugee bala balaa mu lay dalaat di nga jël seen matukaay bu baax nga xam ne bu lay dalaat dangar dina wàññeeku mu ngi mel ni bu la jaan màttee xam nga dangar bi day boo ko takkee doo wàññi métit lu mu lu mu bon bon métit dina wàññeeku avant ñu lay pikiir affaire bi noonu la mel. voilà léegi nag tegal foofu sa baaraam xam nga jaan bu la màttee boo pikiroo rek jeex na dañ na. waaw dañ na waaye yéen mais yéen lan moo tax. Hmm. ngeen na yéen pikir hmm. kii bi vaccin bi. Hmm. soo ko jëlee Hmm. maanaam du la mën a faj danay aar rek pour xaw ma nga mën a aar waaw waaw parce que xam nga feebar bi si boppam moo nekk feebar bu am doole feebar bi kenn mënu mënoo ko am wér te doo ko amaat benn médecin mënu la ko garantir à cent pour cent c'est pas pour ñu génne ñaari vaccin boo xam ne nii benn yoon nga ko jël boo bay vaccin bu am doole beneen bi donc rappel lay nekk ndax la pour mun a aar sa yaram ndax am na ay corps yu nekk sa yaram moom moo lay téye jërëjëf bu génnee sa yaram jërëjëf Moustapha sa kàddu rafet na lu lay jaajëfal bu baax a baax. di jaajëfal itam képp koo xamante ne rek woote na woon eh, ci émission bi eh, ku ci mel ni mami doon ñu wootee fële ca géejewaay mu mel ni dafa keneen ku nekk ci ligne bi allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam bi maa ngi lay nuyu. maa tur bi naka la ak fan ngay wootee. man maa ngi tudd Cheikh Moussa Fatma Ndiaye maa ngi wootee Kër Mbaye Fall. Kër Mbaye Fall. waaw waaw mu mel ni yaa ngi doon suivre émission bi di diisoo ngir aaru. mu mel ni kon euh, am na foo xam ne intéressé na la ci euh, épisode 14 bi léegi da wax fan la bu ko defee euh, artistes yaa ngi nii toog ñu daal di la boobu boobule séquence su ko defee nag bu ñu fa yeggee ci fi la intéressé da ngay wax stop bu ñu nee stop nag boo nee stop ñu daal di arrêté nga mun a jokkoo ak ñoom directement ndax mën naa nekk. léegi fan moo la intéressé. man tout au début quoi ci salle de répétition bi Pape laa bëgg a remplacer pour wax ak Modou. ah Pape nga bëgg a remplacer. oui waaw ah, loolu dina ma neex. Eh, Modou. oui Pape. naka mu gën. oui naa la gis. oui gën nañu gisee gën mais gën santal yàlla. sant yàlla. mais eh, da nga naroon toog rek ñu ne la Pape benn quoi. ñu ne ma Pape lan na. Pape dee na non looy wax nii maa day taali lu xewoon. tout ce temps là ñu ngi gisoo ma nii maa ngi woon hôpital coronavirus moo ma jàppoon. corona la waaye bàyyi sa caaxaari nag coronavirus amul. Modou man damaa bëgg nga déglu ma ñu waxtaan tay jii parce que man maa la ko ñaan amul lu tax xam nga maa ñoo fi nekkoon doon wax ni booy feebar bi amul amul amul amul amul yooyu affaire yooyu noonu. waaw waaye ndax te daal man daal xam man tamit damay dugg di génn rek fu nekk laay dem far affaire bi jàpp ma léegi nag bi ma jàppee nag sonal na ma wax dëgg fa yàlla. Hmm. tëral na ma ba waaw dañ ma doon mujj dóor ay ay oxygène léegi nag bi ma génnee nag dama ne damay taxaw na face ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi des genre idée yooyu naan corona amul hmm. moo dama bëgg nga changer mentalité xam ni hmm. feebar bi lu am na te lu existe la te benn affaire lu ma lay njëkk conseil si loolu xam mooy lan moo dee maintenant nga dem nga jëli vaccin bi booy bul eggali bul eggali vaccin du dugg sama yaram booy coronavirus gars yi ñoo fi nekk di leen dofloo mais coronavirus amul. coronavirus siburu la rek. Modou xam nga xam nga Matar. Matar bi dëkkoon suñu ginnaaw kër. waaw Matar waaw Maxu. Matar maa ngi moom ñoo bokkoon benn la Matar dee nga ni. Matar faatu na. Modou coronavirus bii moo ko yóbbu. xoolal sànq ba léegi maa ngi dégg gars yi la wax nga naan ay vaccin kenn waxul ni dafay dafay aar kenn wala boog boo ko jël doo am corona mais cest à a aar bëggoon tey moytu maanaam di takk di laasa gel alcoolique wala di raxasu ak mais loolu mooy waxu caaxaan ay ko boo jëlee vaccin bi du la mën a faj mais dalay aar yooyu noonu quoi loolu waxu caaxaan la. booy bul nekk ci gaam boobu noonu noo man sa xam nga li nga ma doon wax nii nii yee Matar yàlla na ko yàlla yërëm mais Matar xam nga rek daf siburu bi moo chronique ci yaram bi quoi moo tax dem rek xam nga lu tax feebar bu bees la bu ñëw si àdduna dañu nekk si di ko recherché au fur et à dem dinañ am lu concret li nga xam ne lii da koy faj booy xanaa gisoo bi fi jaar léegi da dégg di waxi sida mais avant loolu gars façon médicament bu nekk amoon na noonu rek la demee sa comprendre vaccin yi dafay ñëw pour benn laps de temps. booy vaccin yi daal man wóolu ko ko mën a éliminer carrément. non vaccin yi moom man wóolu ma ko bàyyi man wóolu ma ko quoi beneen bi des bon man gëw ma ne feebar coronavirus ça existe quoi. loolu moom gëw ma ko quoi. xam ne am na ma la wax bu rooxaray bàyyi si bu rooxaray bu fi nekk sax di kii si bu rooxaray jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal itam képp koo xamante ne woote woon nga ci émission bi ku ci mel ni Moustapha Ndeye Ami Mère Thilo Ibrahima Seck ak Mami ñoom ñëpp dugg nañ ci émission bi joxe seen xalaat ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal itam ki nga xamante ne moo di Koumba Silla nekk ko ordinatrice bi naka noonu ñi nga xamante ñoo tax ba ñu mun mun a suivre bi émission ku ci mel ni réalisateur bi di Fallou Sow naka noonu euh, DJ Las Emmanuel Mendy waaye itam ki nga xamante ne euh, moo di Daouda Ba di jox nag donc artistes yi ku ci nekk ci ñoom mu daal di présenté wu ndax auditeurs yi mun leen gën a mën a ràññee. salaamaaleykum man maa ngi tudd Cheikh Ndiaye maa nekk Modou ci épisode yi maay maay acteur principal bi. man maa ngi tudd Khady Fall maa nekk euh, Mère Fanta. ci PS bi. Jara bootawaay maa ngi tudd Mame Mbodj Guèye maa ngi tudd Baye Ndiaye si PS bi. salaamaaleykum maa ngi tudd Seynabou Diop nekk soxna ak biige ci pièce de théâtre bi. salaamaaleykum man Yacine Diop maa nekk Binta nekkaale tamit koddu ci biir pièce de théâtre. Eh, jërëjëf man maa ngi tudd koddu eh, lum nekkoon présentatrice bi naka noonu may jaajëfal ki nga xamante ne itam moo di Mamadou Ndiol. ñu leen di jox kon dig daje dimanche 11 ci suba jàpp midi ngir rediffusion bi beneen épisode bi nag di épisode 15 altine lay doon ci bu juróom-benn waxtu euh, ci ngoon tàmbale ba juróom-ñaari waxtu jërë ngeen jëf.